ñaata yoon ngay dégg recessé ma wax ngay jaay waga naan da yot di génn bandi woo man maa la dàq yot programme da daan rëy nit ñu toog gars yi sàcc sabar bi woote baara ma yoot nan da ngay yot foo jëm dama dama gën a man man ni nga fekk fii dama gëlëm loo kenn xamul yaa bu daa nga ma doon def kenn xamul man léegi nga ma doon def eh. teel ma sa gëm yow nga jëm école laa jëm yow pour yow mën nga ma nax ah yow président de la république toog def ay discours am en ferme ni tout le monde restez chez vous les écoles sont sont enfermées nga naan ay école laa jëm. wuy ma du ma sam morom yaa ngay dégg fan nga jëm. géej géejum la. yow doom yaa ngi niroog ma ku ma bang àllum neen nan da ngay dem géej lan ngay wut géej te xanaa xamoo feebar bi mbooloo la gën a bañ mbooloo. dayra day ragal mbooloo ndax da ngeen di ñëw nga ñëw fekk sa morom toxo nga jox ko sa loxo mu nuyu la feebar bi jóge sa loxo dugg say bakkan les organes fii dugg sa ne jàpp wàcc jàpp sa put bi yii di métti nga jàpp sa dënn gi wàcc jàpp sa intestin yi sa biir bi di daw nag ah après bu ñëw jàpp sa bopp nga wàlluñu wàllu wàllu waa koñ bi wàllu waa dëkk bi léegi ñun ñëpp nag ñu quarantaine ni say morom yëpp a toog ay waa jëlee booy toggal ma may lekk dépense bee ngi fi munoo laal si biir balaa muy xat a partir d'aujourd'hui naa lan quarantaine comme noo daan quarantaine ay ganaar yi eh doxal nga may jooy say say say nangoo ñu baa doon sax ni laa leen kenn dootu génn kenn dootu génn eh, programme yi nii amatul dara amatul ah man naa la gën a soxla génn dem gën a dagg sa isorobase ba kenn xam waaye yow wuyu woo eh, fii laa dugg may gis kuy génn may gis toog distance loin waaw.